ndegam lu bon fintoon ni àgg nañ ci war koo wane am na koy filmer ay awraam dugal ci YouTube am na ku koy filmer dugal ci TikTok amul lenn loo xamante ni ni loolu la ciy gàññe lu dul daa ñàkk kersa rek ba di ko def doy na waar ñooñu du leen sax nawloo pour di leen tudd ci ay ay ay ay ay wala nangam nangam ndax damay wir ne boo leen ko defee rek da nga leen yi am lu nga leen da am fu nga loo leen may mayuma leen mayuma leen sax kii boobu noonu ndax wax dëgg fa yàlla nawloowu ma leen Buguma am ku melni ñom buguma xam ku melni ñom Serigne Cheikh Ndigal Fall murit nak bu fekke bëgg na jariñu man bu may wax dina wax ak murit yi de nga murit yi nañu fexé jema doon ay sadiq amul inkar, murit lu Serigne Ba wax lolu exécuter la lu ñuy la amul luñ halat, xalaat nim nonola. ko nonu la amul xalaat amul deng dengal amul inkar bo bëggé raw nak moo tax may wax ñeneen ñi nga xamanteni ni nii dañ ciy pëtoxlu di wax seen lu leen neex nañ def nank Serigne Cheikh Ndigal Fall ah gaynde la de te moom bokkut ak yooyu ñuy wax naan gaynde lélé léeg jilé ko all ba duggal ko ci biir ci biir caisse man ne ko bëgg gis da ngay fay nangam ah koko gaynde yoy nonu xeyna mën nga fay gis leen nangam ak nangam Serigne Cheikh Ndigal musta juggé ci toli mm-hmm. te gaynde gu musta jug ci all bi kum boof ci sa toolu bàyyi sa tool boobu dana booy ay fan ci ginnaaw ñu gis ay ay ay yoo xamante ne euh, dafa génn ci kilifa googu di Serigne Cheikh euh, Ndigal Fall euh, mu yeewi ay soxnaam waaye te doon jéggalu ñaari version yooyu mu jur polémique maanaam ñenn ci askan bi xaw a mu xaw a lënt ci seen bopp. audio yooyu naka nga ko jàngatee uh, ak naka nga ko gisee. waaw sëriñ Cheikh Ndigal Fall maa ngi koy jaare di jaare mboolem ko aju ci moom ku ma naw la ku fonk la ku ma bëgg la uh, te itam lim liggéey ci yoonu Baye Fall ñëpp xam nañ ni liggéey gënu koo rëy Cheikh Ibra Fall daa simeeku ci jëmmam. te Cheikh Ibra ñun ñëpp xam nañ ne sañ-sañ moom moo ci toog Serigne Saliou Mbacke xam nga boo xoolee ci biir ay waxam rek moom sëriñ Cheikh Ndigal wax na ne Serigne Saliou sax ku ne xam na fi mu tolloon ci yàlla te daana wax maanaam jé jéggalul leen ma yàlla bay sax jël kaalam di ko teg ci eh, kanamam di tuur xéewal loolu ñu bari teg nañ ci bët sëriñ Saliou lan la def boroomam lu muy jégguloo hmm? loolu dafay mën a réeral taalibe bi ndax taalibe bu sëriñam ne jéggalul leen ma dañuy jàpp ne lu mu def la déedéet yërmande dana àgg ci dana àgg ci maanaam maanaam maanaam kilifa di wax waxee noo xamante ni jaam ñi sax lay bëgg a dimbali te duñ ko xamee noonu waaw ndax ñoom noonu la ñuy waxee dara du leen ci jëlee noonu la ñuy waxee Sëriñ Tuubaa am na xasidaam gum naan ma al kabairi wa min sama bakari ndawi ndaw ak yu magi yi Sëñ Tuubaa buy wax loolu xam nga ni boppam taxut muy wax waaye ki koy jàng lay concerné <laughs> dégg nga waaw bari na xasida yu muy wax sax naan ah astaghfirullah di di jéggulu ay nelaw Sëñ Tuubaa nee na nim daan ni mu daan mosee ay dallu mooy bu tegaan comme luy maam lu mën a tàngal ab ndox ne diggante balaa moo nugg ci lañ na ci lay for bët loolu nelaw la voilà léegi loolu du du ay dallu kooku kon dalay wér ni kon jéggaluwul ay nelaw ndax baaxoo fu du lan moo ñu ko digal te moom kenn gënu ko cee ne baaxoo fu du lan bi zikri laay xaaliqihim fa naw ma fi layli baaxoo bil munaajaat li ma bëgg a tënk ci diggante boobu rek mooy kilifa parfois ni muy waxee day réeral ñëpp ñu bari moom nag jubluwu ci réeral ñëpp mais mànde ji mooy bari ndax li mu wax leer na nañ xëy na loolu mooy code bi ba tax polémique bi bari waaye koo xamante ni dafa nekk ci mbir yor ay ay soxna te biir na la ni Serigne Cheikh Ndigal day defare ndax ñaata nit la defar ñaata jëmm dugg na Europe gi toj ko ku ku ne mu jàpp la maanaam tubaab yeeg ñëpp di nërëm nërëm yi dugg ci lislaam ñëpp teg nañ loolu seen bët duñ ci wax Sénégal dafa mën a jukki ay ay mbir loo xam te ne xelam da cee ñaaw mu ci waxee xalaatam moom tolluwaayam waaye mënoon nañoo jukki yu rafet yi te di ko wax waaye dañuy xalaat ne xëy na comme nee na jéggalul leen ma soxna yi nangam ak nangam ah kenn mos koo dégg gàcce ngaalaama kenn mos koo dégg ci lu ñaaw nag seen Cheikh Ndigal ah ko kenn mos koo dégg ci lu ñaaw te duñ ko ci mës a dégg ndax kooku Cheikh Ibra Fall la. kon jàpp nga ne jamono moo yàqu ba bu kilifa génnee wax rek euh, nit ñi di di di di di critiquer euh, wala di indi seen xalaat. ngay gis ku war a mën a wax te day ragal a wax ndax ñi am xam-xam fi mu toll nii dañoo tëj seen gémmiñ ñi amut xam-xam lañ naan dajj ci télé bi ñuy wax. léeg-léeg da ngay gis koo xam te ne oustaz la boo xam te ne lijjanti bee bari rek ñu teg ko ci tele bi parfois li ëpp ci liy tax mu xew gaaruwaale kese lay doon du la tegal dara lu leer gaaruwaale jigéen ñi koy sax gën a bëgg waaw waaw moom kay day day day kéemaane lool yooyu dañ cee war a wax di war a jukki yu baax yi di ko wax ndegam lu bon fi mu toll nii àgg nañ ci war koo wane am na kuy filme ay awraam dugal ci YouTube am na ku koy filmer dugal ci TikTok amul lenn loo xamante ni nii loolu la ciy gàññe lu dul daa ñàkk kersa rek ba di ko def ngir lan ngir dafa am am am am ak mbonam àgg na ci mu koy wane lu baax li duñ koy wax. mel ne Adama. doy na waar ñooñu du ma leen sax nawloo pour di leen tudd ci ay ay ay ay ay wala nangam nangam ndax damay wiir ne boo leen ko defee rek danga leen di am lu nga leen da ngay am fu nga loo leen loo leen may mayuma leen mayuma leen sax kii boobu noonu ndax wax dëgg fa yàlla nawloowuma leen bëgguma am ku mel ni ñoom bëgguma xam ku mel ni ñoom dégg nga Serigne Cheikh Ndigal Fall Murid nak bu fekke beug na jariñu man bu may wax dina wax ak murid yi de nga murid yi nañu fexé jema doon ay sadiq amul inkar murid lu bawah ba wax lolu exécuter la lu ñuy la amul luñ halat, xalaat nim ko bëggee nonu la amul xalaat amul deng-dengal amul inkar, bo bëggee raw nak motax may wax ñeneen ñi nga xamanteni ni dañ ci ciy lu di wax seen lu leen neex nañ def nank Serigne Cheikh Ndigal Fall ah gaynde la de te mom bokut ak yoy ñuy wax naan gaynde lele léeg jile ko jëlee ca ba duggal ko ci bir ci bir caisse man daan ne bëgg gis da ngay fay nangam ah koko gaynde yooyu noonu xëy mën nga fay gis len nangam ak nangam Serigne Cheikh Ndigal musta juggé ci toli yi mm-hmm. te te gaynde gu musta jug ci all bi kum bof ci sa tolu bàyyi sa tol bobu dana boy, lol nak moy jamono li xew Serigne ci dañuy dem Dakar war a làbbanti ñi nga xam te ne dañoo lab di làbbanti ba far lab ñoom dañuy lab ndax parce que dañuy ñëw war a wane li seen maam li leen seen maam bàyyee mhm. ngir war a jubbanti nit ñi teg leen ci yoon wu baax di ñëw di teg nandite yow da gis ay taalibe yoo xam te ne ay nandite lañu bëgg a bàyyi loolu ngir topp yàlla mhm. yow nga ñëw di leen jaay ak nandite ak naan leen sama kër ba ca almade ak nangam loolu buy toq ci seen xol yi dañuy jàpp ne loolu rek moo baax mhm. yaa dégg nañu def nànk bu baax a baax a baax Serigne Cheikh ndigal mësta jóge ci ay ndigal mësta juge ci li li nga xam ne loolu la maamam nekkoon kanta soxna yu bare ak nangam ak nangam Serigne Saliou Mbacke ku ne xam na ko ci charia ku ne xam na ko ni mu sàmmoo man de xam naa ci koo xam ne Serigne Saliou Mbacke Fall lu yàggul la ma mayoon kër fee ca jas Serigne Saliou Mbacke Fall moomu am na ñeenti soxna te bi mu waree fas juróomeelu soxna Serigne Saliou Mbacke moo ko moo ko ko ñaanal juróomeelu soxna juróomeelu soxna kon xattaa ba muy dooni junni sama yoon nekku ci waaye Serigne Saliou lu jéggi li islaam wax naan ay nangam la la wax ay nangam ak nangam luñ ca teg seen sañ-sañ ñoom fañ toll bay mën lool ak di ko xam ñoo ñu gën a xam yàlla ñu ñooñu ca gën a jege kon nañ def nànk nañ def nànk ñi nga xam te ñoo wax nañ déglu ñi nga xam te war nañoo wax ñun nañ leen déglu tamit te luñ wax bila inkaari amul sikki sàkk amul xalaat amul amul sikki sàkk daal amul yoo xam te ni tey jii ku ko dégg day xam ne nit ki li muy wax day contraindre li li sëriñ bi wax dégg nga loolu nag moom moo yàq dëkk bi nañ teeyaat baax. jërëjëf euh, Ndiaga ci euh, tontu yu am am solo yu nga xamante ne euh, tontu nga ko lu mat di leeral la nag ndaxte kilifa bu génnee wala sa kilifa bu génnee euh, wax ak lu mën a wax yow taalib bi amoo lenn loo ci war a seetlu lu dul nga nga jël njariñ la la la ci intéressé wut nga nga bàyyi ko ndax li ëpp li li yàq ci askan bi lu bëree baree bëri euh, wóolootuñ kilifa maanaam kilifa boo ko amee da nga koy wóolu doyloo ko tax euh, Sëriñ tubaa bu daan wax ak mag ñi amut kenn ku ci daan jug daan daan daan daan lumbuju wax ja kon njaga waxtaan wi am na solo lool ci sunu ñaari question yi des rek ñu dugg ci seen li nga xamante ne moo ji sa vie privée euh, ndax kilifa yi nga xamante ne dañ leen di gis ñi ñuy dugg ci politique jàpp nga ne lu lu war la bañ leen di tëj di leen saaga di leen wax loo xamante ne euh, yow tey par exemple boo gisee ñuy saaga koo xamante ne santam euh, santam da nga koy da nga sant wala mu sant weneen sant si wala mu mën a sant rek nga dégg ñu koy saaga xëy na sa sa sa du la du la neex boo giseen ñuy def noonu kilifa naka la lay def. waaw maanaam loolu nag laaj bu ma neex la ndax kilifa bu mu bàyyi bu mu fàtte mukk li ko maamam bàyyee li nga doon ba toog ci yam bul bul fàtte mukk mukk mukk li la ci teg kilif maanaam politique u Sénégal dafa salte kuñ dégg yaa ngi koy def ñun suñ fiti danaan tëf ndax xam nañ ni warante la waxante lu ñaaw euh, sànnante ay taraak ku gën a mën a manam def affaire njuuj njaaj rek kooku la ñuy wax homme politique bu mag la kon politique u Sénégal ku xam dëgg dëgg dëgg dëgg politique da ngay xam ni kilifa yeeg ñëpp dañ cee war a tàbbi politique u Sénégal moo salte ni mu mel baaxul te ku la ci gën a mën a say noox nga ni kii la da ngay gis ku sonn bu xasee ba dugg ci incha allah day fexe ba famem yëpp moom nekk ay kii nii kili ñëppam teg ci suñu jamono ji kilifa yi comprendre fexé nañ ba xamné mëno bëgg yalla ba nopi bëgg ko am am gu wër bëgg ko tassaré tassaru gu wër ba nopi di di di lek ci xaaliss bobu nga xamanteni ni ne nii tey boo ko ci sa bir koll yalla mom dang koy noppee yek mom surtout ñu la ci jox ab lim di la koromp di la jënd yaangi dégg kilifa yi nga xamné nak da ngay jék jék di leen dégg ci yenn kil yenn mbiri xana ñom ñu soxla ñaan ñu ñaanal leen ñu dem buñ leen waré wax dëgg ñu wax leen ko ñu dem yaangi dégg ñi comprendre te xam li xew duñ lekk seen xaalis yi yaa ngi dégg ndax barke boroom Tuubaa gis nga bu fekkee da bëgg yàlla mbaa nga koy sàkku buñ la joxee dërëm bu lewut day day day lëmbaaje yow sa digganteeg yàlla balaa ngaa jàll benn benn benn pays balaa nga faa jàll. moo tax gaa yi daan beru di fu nañu dugg fa sëriñ bi wax na ko sumtun wa juun tawilun ba'dahu sahrun léegi est-ce que loolu am na loo yooyu ñu war a sàmmoonteel di xiif ak di nangam ak néewal suñuy nelaw ak néewal nangam néewal nangam gaa ñi léegi dañuy nelaw ba yàndoor dañuy def yëpp ku leen jox ñu xéewalu ba noppi ne dañooy àgg ci yàlla dara ak kurus loolu yomb na noo mën a def mën nga koo am te ay pexe yu rëy la ak wërsëg kese kon nag cadre nga war a dugg ci mbir moo xamante ni tey ji dañoo wax ne dafa war a defar dëkk bi te képp ko xam te nitu dëkk bi nga am nga kàddu ci dëkk bi waaye nii muy demee nii da ngay war a wax ci dëkk bi sax boo ci waxee ñu ñu ñu kii la ndax politique gu Sénégal dafa salte kon looloo tax suñu kilifa yi nga xam te ne xam nañ li xew yëpp duñ leen ci dégg ñi nga xam ne dañ leen ciy saaga nag ñoom ñoom ñoo xam ñoom ñoom ñoo xam ndax seen jubluwaay li tax ndax leen lu ci nekk na nga ca sóoboo loolu nga ciy fayeeku lañ cay jublu buñ ca jublu woon yàlla kub yonenam hmm. ak fekk ne toog fiñ toog ndax sëriñ bu demee bay lang-langi ci kër ministre yeeg député yi wax dëgg fa yàlla xamatul li xew. waaw ndax ñoom seen maam da leen a liggéeyal loo xamante ne nii koo xamante ne day rang fii gàddu maletu xaalisam di wër sëñ bi te ku ne lay neexal ngir gis sëñ bi te bu bu gisee sëñ bi tiflitu sëñ bi dong lay teewoo fi mu toll murloo buñ rombante ci mbedd ma tiflal da nga may ñaf ci lu wér kee da lay jox maletu xaalisam te boo ko tiflee da koy raayoo génn naan sëñ ba ba ma joxee loxo sëñ ba ba ma dugalee ca saalam ba ma dugalee ci kooku mooy gaynde gi nga xam te ni jugagul ci àll bi àll bi nag mooy li la sa baay bàyyee woon ak sa maam waaye bu fekkee dañ laa xëcc ci biir parc bi rek ba naan ku bëgg a gis léegi da fay nangam ku bëgg a gis nangam nangam protocole bu rëy boobu te dara ëmb ko lu dul affaire teg dil rek pour affaire u xaalis ak tappale wax dëgg fa yàlla moom lu ñu leen def baax na <laughs> waaw kilifa bu xamee boppam. day toog nitu àddina yi fekk ko fi ñu nekk bu ko defee bu dee luñ fa mën a yittewoo. moom mu xool nu mu leen ciy dimbalee fu mu ci mën a yem mu yem ceeg ñoom bañ a dugal ci ay kàddoom ci ci ay kii ndax politique gu euh, Sénégal baaxul waaw. jërëjëf Ndiaga Alpha Rox ñoo ngi ànd ak réew mi wër na média waaye di ànd ak euh, sunu site yi Senez euh, dañuy dugg rek lenn ci li nga xamante ne xëy na sa vie privée la tey bu nu bëggoon a xam njaga Alpha Euh, moom dégg naa euh, nekkul boon murit ci weneen euh, yoon la nekkoon naka la def ba nekk murit naka la def dégg naa am njàngam jàng am njàngam xawoon naa xawoon naa doy waar te it boo toogee ci lu mel ne boo boo toogee ci ay say mbokki taalibe dañuy gis ne da nga leen soññ ba ñuy yëg seen bopp te sam njàng xawoon na am na am nga jaar-jaar daal loo ñu mën a indil loolu nag moom dinaa ci sawar ndax Eh, nek na li nga xamanteni nim nimu yeme nit ñi lama yeme nimu yeme nit ñep lama yeme ndax borom Tuubaa manam kumu mom bo la soxla ngir nga añ fo foo mën a nekk nga añ si borom Tuubaa kumu mom fo nek bu fekke da nga wara a ndékki allah sa ndékki mom duñ ko jox ken ya koy ndékkee yoon wi nekkoon ba daal ñëw ci yoonu tiijaan la di ziare sama mbokk yëpp nga xam ne yoon wa maanaam macha waaye man fii dal sama xel ay jàmbaar lañ waaye borom Tuubaa moo ma gënal loolu nag li tax ma di ko wax mooy yàgg na maa xam man yàlla xam naa ni moom moom asamaanam sii taw bi bu tawee ñun rafet nañ njort ne moo ko taw yaa ngi dégg yàgg na noo xam maanaam mboolem mboolem mboolem tajiliyaatam ci ci ci ci jamono rek ñu xam li lii ko dogal yàllaa ko dogal ñun ñëpp ñu nekk ay murit ay julit ci kumpa ci yu bare bari yoo xam te ni dañoo xam ne yonent bi moo fi tracé lii moo fi def lii moo fi def lii moo fi def lii te muy borom tubaab moo ñu jariñ ci loolu borom Tuubaa moo ñëw ni ñu isil muridu laa yuridu abada lu jiitu lool sax kenn ku ci nekk dalaa xëcc boo boole la ci tànnam googu muy tànn tànn la ba noppi loolu li tawféex ñu ciy sant borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa ba noppi léegi nag mu mu waxaat ñu ne ñu isil muridu laa yuridu abada murit te bëgg lu dul ngërëmal yàlla kon nekkte xëlëf xëlëf geeg nangam nangam ñun yàgg nañoo yàlla te mosu ñoo mel nii. lu la lu ba nga ñëw. ma xiirtal ba ma ñëw du ko. signé loolu sëñ bi day. dimbali ñu ci maanaam yéeme na yéeme na lool yéeme na lool lool ndax maanaam li ci gën a garaaw dama ko doon yëg ci sama yaram rek te ma seetlu ne ni murit yi doxee daf maa dugg ma gis koo xamante ne man ak moom bu ma neexee tudd turam ndax koo mënta wax démbam dafa mel ni comme walla ku wax démbam dafa mel ni démbam. démb non da naan sax dafa mel ni mën na cee delluwaat ba tey kooku li yéeme mooy man ak moom dañoo àndoon defiji woon loolu ñuy wax maanaam dox ànd mooy doxaan ah. ñu dem doxaani mu am fa rendez war faa delluwaat mm-hmm. mu gis ki ko moom jébbal koy mbiram lépp raxasu ci xelam ci benn bis ci ñuy dox man ak moom maa ngi koy fàttali naan ko ngoon bul fàttali ndax ndax dañuy dem jëli ji réponse ndax nit ki dana ko ci kanam boo fi jaaree incha allah ñu waxtaan ci ñuy waa ñuy waajal loolu mu dajawaat ak ay soxna ñu koy nuyu mu mu aalu seen kaw du ma nuyu jigéen ñam doon waxal ci lu jëm ci loolu ku ko ci woo di ko ci wax mu lay harcelé nga xam ni kii léegi li mu àndal nii dafa mel ni man daf maa yéem man jaa jaaxle romb jaaxle na ko saa waa ji lii nga def nii dinaa ko def bu dee lii day génni nii lay def nit jébbalu moom faw ma def ndax man bëgg naa tàqalikook ñaawtee fii tàqalikook yenn yi ñuy mën a woowee ñaawteef daal ci nit ak sàggan ndax nit lu fekk loo xam ne dugg nga ci te xamoo lu muy jur xamoo lan mooy mbóot ma xamoo lan mooy nangam ja bañ cee dugg da koy gën te saawaaj bi mu ci duggee man moom résultat immédiat loolu ñuy wax jooni jooni dama ko gisee ci moom ba noppi ci jamono boobu ma gis mu jàpp sama moroom ñu ma gënoon a ës yaa ngi may dégg dara jëy maam Cheikh Ibra Fall lu ne laa doon def yaa ngi dégg di len indi ci ci lu bax di len feral idi di len di tax ñuy gor du tay di waxtu ram seigneur dara Mbacke moko defar moko ko fi may wax ak yow ni mi ngi mbolo bu dul jeex di len di len tek ci yoonu yalla moy Cheikh Baye Fall ñu wax Cheikh abdullah Yaqin nek jambar lol jorinam nekkon euh, Cheikh Omar euh, al farouk nek Cheikh Omar al farouk nek jambar mom tam lol ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool barki seexul xaddim bu ma xemmemee yoonu murit waa kër borom daaroo tax loolu daal mooy sëriñ bi dama daf maa daf maa jukkatee ci mbir me daan may dugal ci biiram dénk ma borom daaru ni ko dénkee woon ni mu dénkee woon borom daaru yoon wi xam ak njaboot gi dénkee ma noonu borom daaru sa sa sa sa njaboot gi nga xamante ni euh, am nga ko dans tout tank bi nga mujj am yaa ngi ko waaw kennal borom Touba. kennal borom Touba. waaw ñu bari tàng ci jër. ño xam dara jey maam Cheikh rafal ño xam ndax man sama juré sama dom buma nexé tuddé ko mol mol urdu ndax sama dom la barki cheikhul khadim xam nga dom adamay dañuy dañuy réere mbir ci ben affaire ndax ki nga xamanteni nekk na ci mbir di ci góorgóorlu te da jamono bi nga xamante ni maa ngi maa ngi am xaal boobu noonu ngir def ko mm-hmm. li yéeme ba yéeme ci mooy mm-hmm. euh, dafa amoon daara daara talaata yi boo xam ne dañ ko doon def di jàng ay limi limi tufatu yu bari di ko jox Cheikh Ibra Fall addiya mm-hmm. soxna si da doon da doon diis lool ndeysaan da ci daan bokk yor jukkeem bu gars yi nekkan fa ba trois heures di matin du tax mu mu mu onk sax ngir naan la lii wala laa du du du wax dara lu ca jëm dégg nga wax ji mu nekk jàmbaar lool soxna aram maa ngi koy jaare waale bu baax a baax nekk koo xam te ne ku may muñal la jàmbaar la lool ndax jànkat dafa xaw a naqaree nekkal dégg nga moom mu nekkee ci xaal boobu di durus ñun duñ ko ëppale day durus bu baax tey waajal li ñuy xéewaloo ñun ci talaata ji talaata yi Cheikh Ibra ji ci jamono boobu mu am tout tànk di doon góor juddu ci màggalu poroxaan ah noo xam kun koy tuddee ndax xam naan bu ma ko tuddee seexul xaddim daan ko woo yónni ko te man moom yow biir na leen ni rek man kenn du ma woo man kenn du yab sëñ tubaa man di ko jaare ci man moom kon du ma am sama doom koy woo di ko yónni naan ko sëñ tubaa kaay mu la xalaatuma ko kennal borom tuwaa bu ko defee ñi xamoon ne borom tuwaa kenn la te sama jëmm tax yaa ngi dégg mm-hmm. te duñ ko wax mm-hmm. ma jur doom ñu koy wax ndax faw dinañ ne kennal kaay kennal borom tuwaa kaay ana kennal man kër ga yooyu <laughs> loolu laa si jublu loolu laa si jublu. la ilaha illallah man de njëg mi dëgg yàlla jaaxal na ma jaaxal leen nag xam naa waaye nag dana ñëwaat incha allahu rabbi dana ñëwaat ndax waxtaan bi doyut amul mbokk ma doy njëg alfaaro. <laughs> daal di koy tëjee waaye de barki suñu tubaab lii lii ko defaat jotaay bi xam dana ñëwaat. ci kàttanu borom bi. boo ko defee ñu daal euh, ñu daal di euh, yëkkati foofu jotaay bi ndax defe naa mbokk yi seetaan am nañu ci am cofeel ci waxtaan bi dafa mel ni gën a mën ka ne jàng nag baax na defal li ma la ah, ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm barki Cheikhul Khadim di ñaanal sunu kilifa sunu sëriñ. sunu yaakaar tey ak ëllëg Seydina mu karamu Sëñ Dara Mbàkke xaadimu rasulullahi mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbooleem koo xamante ne nii rek nag sunu wóllëre nga ñu ngi lay jaare baax a baax ak mboolem Sénégal ak kuy dégg sunu kàddu ak mbooleem sit bi di Séné eh, Sénéz ak wóor na média ak eh, réew mi média kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ziare ñi nga xamante ni tey jii buñ bu ñu amee disponibilité ngeen am plateau bu yanj bi eh, di sama tooma di sama xarit nga xam ne moom bisub tey jii lañ xamante waaw nga xam ne ay jàng lañ fanaan bisub tey ji lañuy ñuy gën a raaxaloo maanaam war bokk Touba bokk ñëw ñibbisi ndax ñi ngi jàngi ji woon dëkk bu ñuy wax naka mbàqaan dem liggéey li fa sëñ Touba jóge fa ba tey jii dallooguñu tey lañ xamante tey lañ am disponibilité war a taseeg yéen fii te moom moo ko jàppandal ñu ngi koy ñaanal baax a baax di sëñ Njaga doon jàmbaari sëñ Touba Mbàkke da koy yëg lool ma naw ko lool macha allah waaye njaga yi ñoo mel noonu suñ tur wee nag moo tax ñoo ngi ziare ñëpp barke maam Cheikh Rafal. Aliou Ndiagari yetu sama waa ji am na mbégteeg euh, contentement bu baax a baax ci wax ji nga xamante ne mat na te it euh, matale lool. am nañ ci mbégte bu baax a baax waaye nag euh, Serigne Touba mooy boole ay ñoñam ay ñoñam bu ñu waree ànd kenn ku ne euh, boo nekkoon kii bu nekkoon Sénégal ki ne nekk Quercoeur du tey danañu ànd euh, liggéey Sëñ Tuubaa nag moo demee noonu ak Sëñ mooy boole ay nitam euh, ndax man bi ma ñëwee jàppoon naa ne ay at yi at ngeen xamante ci yaatal gi ak baax gi ak dal gi ak murite gi kër gi tamit di këru ko taalibe am na ñu mbégte yàlla na xéewal yi yokk ci barke borom tubaa mbokk yi lii lañu ñu leen indiloon ci fi nga xamante ne moo di dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ci côté pale Ndiouga Kébé njag Al Farouk am nañu mbégte bu baax a baax kon mbokk yi foofu la ñuy teg suñu loxo di leen jox di daje ba beneen yoon incha allahu rabbi ci suñu acte yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi jaa jëf.